أعوذ بالله الشميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم والحمد لله على نعمة الإسلام الظاهرة والباطنة قديما وحديثا ثم صلاة والسلام على سيد الوجود مولانا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اختفى عصره إلى يوم الدين بكي آه، السلام عليكم ورحمة الله آه، بكي yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun ci tafsirul quran ci sit bi ñuy wax weer wi tv tabarakallahu ci ndimbalu sayidina omar fay ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan yàlla yàlla defal nu tawfiq ak taysir tabarakallahu yàlla wàcce barke téere bu sell bi ci nun waaye ñu dimbali ko borom bi subhanahu wa taala ci barki téere bi ñu ngi nekkoon ci suratul fatiha di ko leeral wax naa ne alquran amul kenn ku ko dégg yàlla wax na ne laa yaclamu taawiluhu ila allah waaye laa yaclamu taawiluhu kenn xam ko lu dul ñamu junj te mooy arrasiquun arrasiquuna nag ñoom lu ñu ci xam rek ci kàttanu borom bi lañ ko xam ñu ngi toll woon ci maliki mi diin te yow ma laa yamliku ahadun maahu fi zalika al yawm mooy bis bi nga xam ne kenn du moom daara xoog man ci atte ci kaddu ni nit moome woon ci kaw suuf bis booba nga xam ne mooy bésu deyne bés booba kenn du moom ku dul yàlla mooy yowmul xisaab bis bi yàlla di régler leen xalaa'iq ñeel jaam yëpp kenn ku ne jot sa cër xataa da wax na ne sax yowmu diin yowmun yu dayyinu llaahu al ibaada bi amalihim mooy bis bi nga xam ne borom bi subhaanahu wa dafay fay nag jaam yi seen liggéey kon iyaaka naabud wa iyaaka nastain ay na xutsuka yow yàlla yow rek lañu ñu jagleel wax daka yow doon baatu ya loolu lay tekki maanaam dafa bokk ci aadaat yi nga xam ne yustamal li waxdatin bu ñu ko jëfandikoo rek kenn rekk la boo demee ci ibnu malik moo nga koy lim buntu baak la mu àndal mu ne wa iyaaya wa tafriqu laysa muskila kon iyaaya mooy yow dong yow yàlla naqussuka waxdaka bil ibada wal istiaana yow rek lañu jagleel maanaam jaamu ak ndimbaliku fan awwalu bu jëkk bi mooy tabra'u mina shirki ñun yàlla dañu nañ ci bokkaale nag lu mu doon mooy iyaaka naabu wa saani ñaareel bi da mooy iyaaka nastain mooy tabra'un dañ nañu min xawli ci ay pexe wal quwwati ak kattan ñu koy jéem wala ñu koy moomale kenn والتفويض الى الله نمير لب تي الله سبحانه وتعالى دلوك بروم بي سبحانه وتعالى لولو موي اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد موي التقلص من الشرك موي دنج بوكال واياك نستعين نك موي ييك لا حول بخي امول ولا قوة كتن عمل إلا بالله لدو برمب سبحانه وتعالى نغرف توقف كن ihdina siraatal mustaqim ah, yow yàlla nu ngi lay ñaan nag alhidaayatu te mooy njub njub gi nga xam ne mooy tegu ci asiraat al mustaqim boo ko doon tekki tey dangay wax ne yàlla ihdina indiqué ñu dallanaa tegtal ñu wa arshadana nga jubal ñu yow yàlla yaa rabbi ila tariqika ci sa yoon wii nga xam ne الحق موي يونو دغ ودينك موي سا دين بو ديمي بروم سبحانه وتعالى مانام يون وو دي صراط المستقيم مو يون وي يال خيوللي يوننتيا نيت نو باخني تي موي الذي انعم الله عليهم من النبيين نيو تي جيتو يالا تيغلن وصديقين وي دغونيا تي مقام motax deggu maqama la boo xam ne daf la yéege ci maanaam wàccuwaayu yonent alladina anama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa xasuna ulayka rafiqa kuréel googu nga xam ne yàlla tudd na leen ñoom ñëpp maanaam ihdina siraat al mustaqim dafa lay laafe nga bokk ci kuréel googu mooy ñu yàlla wërsëgal teg leen ci siraat al mustaqim ba noppi ñu sax ca ndax boo demee ci jeexitalul fatiha dina am ñu am nañu siraatal mustaqim ba nopi nak waye saxuñu ci tabarakallah kon ihdina siratal mustaqim moy yàlla yàlla nga ñu tek ci sa yoon wo nga xamne moy yoonu deug moy diine islam wa ala alal islaami mooy nga saxal ñu ci islaam allazi islam bi nga xamne ne baasta bihi anbiya anbiyaaka ci nga yonne sa yonanti wa rusulika ak sa ndaw yi wa arsalta bihi xaatimil mursalin te nga yeen yónni ci nak ki nga xamne mo moo yonanti moy yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam واجعلنا ممن سلك طريق المقربين اهدنا الصراط المستقيم داي موم لاي تيكي باتاي مو يو يالا يالنا نغا نو تيكي نيغا خامني نيو سوبو يون ويغا خامني يون وو موي تخ ني جيغي يو يالا موي تخ ني ام سا غرم يو يالا لولو نك موي صراط المستقيم هو القران موي باتاي نجوبك القران والاسلام موي الاسلام اه يون وو نك moom la borom bi wax ne siraat alladina an'amta alayhim mooy yoon wi nga xam ne yow yàlla hada siraatu almustaqim wii yoon wu jub huwa tariqun yoon la woo xam ne man an'amta alayhim min annabiyina ci nga xeewal yonent yi wa siddiqina wa shuhada wa salihin wa hum almazkuruuna fi surati nisa ñooñu yàlla tudd ci surati nisa ci aaya boobu haysu qaal wa man yuti allah wa rasulah fa ulaika ma allazina anama alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa xasuna ulaika rafiqa loolu mooy siraatul mustaqim yàlla ci àlde gayril maxdubi alayhim gayra tariqil maxdub yàlla yàlla bul ñu sóob ci yoonu ñi nga mere am na ñoo xam ne gindi nga leen ba noppi waaye ñu réeral seen bopp teg nga leen ci mbaax ba noppi waaye ñu réeral seen bopp huwa tariqu loolu nag mooy yoon wi nga xam ne allazi arafu alxaqa wa tarakuhu ñoo xam dëgg ba noppi muy yoonu sankute ñu bàyyi ko kal yahudu lu mel ni yahud yi ñoom la yàlla di waxal ndax yàlla wàcce woon na ci ñoom yonent bu ñu wax yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam yàlla jox ko téere muy tawraat yàlla jàngale ci njub yare ci jàngale ci boppam te muy wéetal ko ñu wan leen ko ba noppi ñoom ñu gis loola gëm yonent yàlla Moussa waaye bi Moussa demee alquran ñëw ñu weddee alquran ñooñu nag mooy almaxduub ñu yàlla mer yàlla ci yàlla musal mu ki noonu tam wala daalin yow yàlla yàlla na nga ñu musal ci addaalina way sànku ñi addaalin nag ay xayra siraat daalin yàlla bul ñu teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sànku ndax addaalina alladina tarakul xaq moo ñi nga xam ne bàyyi nañu dëgg alal jahli jënde ko leer wa dalaali ak sànkute ka nasaraani ki nasaraani yàlla yónnee na ci ñoom yonent bu ñuy wax yonent yàlla Isa alayhi salaatu wasalaam waaye yonent yàlla Isa boobu bi mu ñëwee yàlla jox ko téere bu ñax wax injil yàlla jàngale ci njub ak dëggu ak wéetal ko Isa boobu bi muy dem mu wax leen ne maanaam dina ñëw ci sama ginnaaw yonent bu ñuy wax Ahmed kooka nag moom mooy mottali mission bi ndax amul benn yonent bu fi jaar lu dul bàyyee na aw nitam ne maanaam mission bi ki koy mottali dina ñëw ci suma ginnaw ma madratun ma madat fatratun min rusuli illa basharat bika ludul bégal na aw nitam al anbiya u yonent yoy yeb begal nañ sen nit ne amna ko xamne moy ñëw motali mission bi koka moy khatimin nabiyyin moy sayyiduna muhammad alayhi salatu salaatu ñom nak ma su ñëw wute ne amna yonent bi ñëw waye li waral fa tabaarakallaahu sànkute gi moy yonent bi dal dafa ñëw bokul ci sen xeet yi ñu jàppoon ne seen xeet yi ñoo gën ci xeet yi te mooy al yahudu wa nasara ndax yàlla junj na ko ci suratul bayina wa ma tafarraqa alladina utul kitab masula teqalikoo ñoom ñi yàlla jox téere ne am na kuy ñëw di complété mission bi ah wa ma tafarraqa alladina utul kitab illa min baadi ma jaatuhumul bayina lu dul bi lay wi ñëwee lay wa nag mooy sayyiduna muhammad mu génne ci arab yi xeet xeeb nag xeetu arab moo waral ñoom fa tabarakallahu ñu wan ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah bu ko defee kon ñu ngi teg suñu baaraam foofu incha allahu eh, bu ëllëgee ci beneen eh, jukki tabaarakallahu ñu doore suratu baqara ñu ngi ñaan yàlla mu defal nu dégg ak topp boo gisee ñu bëgg ko def tafsir mu yassar ngir rek fa tabaarakallahu ñu dégg maana aaye yi mu neex a takk moo tax bëgguñu xóotal loolu ci sara bi ñu eh, ngi sant ñëpp rawatina sayidina Omar bi nga xam ne moom bokk nekk ci boppu sud di weer wi TV ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yokk ba alam bi yëpp di ko déglu di sant kilifay diine yi di leen ziyaara ci asura bi ñu génn di ñaan yàlla na mu defal ñu tawfiq ak taysir tabaarakallahu di ñaanal président de la république jàmm ñaanal ko aw xeetam ñaan yàlla sutura adduna ak bu alaxira seen mbokk Sacha Mati Diané Mbeng wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullah